alhamdulilah ànd ak waa biscuiterie yëpp nag ñu nekk suñu gannaaw ñu ngi nii ak ña ca kanam fële nelawu ñu ñun fii la fanaan xalifa rek ñu ñor dëgg rek ñu ñor te dañuy ñaan yàlla yàlla atte ñu ak makki sàll te xam ne procès bii ku ko xool xam ne procès lay la procès mascarade la procès politique la ndax bu bu fekkoon nangu nañu dëgg rek nangu woon nañ caution bi waaye ba ñu bañee caution bi la ñu suul seen bopp gas seen bopp suulal seen bopp dëmm nag mu sës du la bàyyi waaye ñun ñun ñu ngi nii anti dëmb la ñu ñu ngi taxaw di ko xaar. yaakaar nañu suñu justice yaakaar nañu suñu justice xam nañu ay sénégalais lañu ñun ñëpp ay sénégalais lañu Sénégal nag benn benn kee benn nit moomu ko ñëpp ko bokk xalifa Ababacar blanc comme neige yaakaar nañu suñu justice yàlla na yàlla àtte dëgg bu leer nañ ci kàttanu yàlla.